mbokki parieurs yi asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi asalaamaaleykum mbégte nag tey la ñu am ndax tey mooy bés bu mujj muy dernière remise bi ci li nga xam ne mooy seen loto pot waaye itam li nga xam ne mooy 590 yaakaar waaye képp ku joué ci PMU bi mbokk yi kon ñu dalal monsieur Cheikh Tidiane Senghor nekk le coordonnateur général de la direction de la LONASE bu ko defee mu fekk suñu fii ci plateau bi daanaka événement bu nekk rek dañuy fexe Euh, bégal parieurs yi bëggal client wu Lonase te soo waxee tabaski Sénégal xam ne ay dépenses yu bëri la loolu moo tax ñu ànd ak suñuy partenaires depuis le mois de mai juin euh, di organiser promotion ci PMU ak loto ba tax na tey ñu war a remettre ay enveloppe ak ay bons d'achat am na suñu meilleurs vendeurs yi set yoo xam ne dinañ leen jox tey ay euh, récompense loolu nag LONASE bu buy def loolu euh, dafa bëgg cohérent avec son slogan la fortune aux souscripteurs et les bénéfices à la nation mbokk yi lii nag mooy li ñu leen diggoon lii mooy chose promise chose due xar mbaa xaalis xam nga LONASE moom fu mu dem rek mi ngi fay def lu baax te yaakaar naa ni lii rek la ñuy xaar ci société nationale boo xam ne mi ci biir réew mi ndax lu mu am ci réew mi la ko jëlee waaye lu mu amit ci réew mi la koy delloo kon mbokk yi ba beneen